allahuma inni audu an azlima aw uzlam xadiisu bis bi jëlef na ci ibnu abbas yàlla gërëm leen mu ne yonente bi salallahu alayhi wa bi mu yónnee maas ibnu jabal ca yaman dane ko ragalal ñaanu ku ñu tooñ ndax digganteem ak yàlla du am kiiraay xadis bi buxaari ak muslim ñoo ko nettali an ibni abbas radiallahu anhuma an بعث معاذا إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين لا حجاب rawaahu Buxaari wa Muslim. waxtu julli yi suba waxtoom dana tàbbi juróom-benn waxtu wutegal ñeenti simili tisbaar benn waxtu wutegal ñeent fukki simili ak ñeent tàkkusaan ñeenti waxtu wutegal ñeent fukki simili ak ñeent timis juróom-ñaari waxtu wutegal fukki simili ak juróom-ñett gee juróom-ñetti waxtu wutegal ñaar fukki simili ak juróom-ñeent loolu mooy waxtu julli yi ci Tuubaa ak ko wër.